tabaarakallaahu kon ni ma leen ko junjee rek noonu la demee mag ñi yëkkati woon alquran ñàkkuñ dara ndax alquran a leen yëkkati te alquran ku mu yëkkati kenn mënut laa daaneti alquran moomu nag waxoon naa la téeméeri saar la ak fukk ak ñeent saar ya wàccoon màkk limal naa le ko ya wàccoon al madinatul munawwara tamit limaloon naa la ko tey nag damay jëm ak yow tabaarakallaahu ci saar wi njëkk ci kaamilu alquran bi nga xam ne moo ubbi kaamil bi boo ubbee rek moom ngay njëkk a daj muy faatixatul kitaab te tamit nii lañ ko mokkalee woon ci toftaleeg yonantu bi waxoon naa la ni alquran wàccee ci toftale waaye toftale bii ñu toftalee ko ci kaamil bi mooy la ñu ci dënn sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci saxaaba yi mu wàcc taabiin yi wàcc tey ba kaamil yi tasaaroo ma waral téere boo ubbi rek fatiha ngay fekk moom mu nekk lu duddee fatiha moom nag tabaarakallaahu bala ñu koo firi ñu jël menn mbokk ci daara ji mu jàngal ñu ko ñi mën a barkeeloo fatihatul kitaab aouzu billahi min alshaytani arrajim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 fattul kitaab ngi noonu di saar wi gën a ci alquran buñ la ko laajee mooy fatihatul kitaab loolu la bi waxoon saxaabi yi ba muy julli mu woo ko kooka julli ba pare door a ñëw si yonantu bi yonantu bi ne ko xanaa jàngoo ci alquran yàlla ne bu ma leen wooyee man yàlla ak yonantu bi dem leen ngeen wuy jule istajibu lillahi wa li rasuli ida daakum lima yuxyikum ba mu ñëwee nag mu ne ko dama la doon bëgg a jàngal dama laa bëgg a jàngal saar wi nga xam ne moo gën a tedd ci alquran kon kooku yonentoo ko waxal boppam muy fatihatul kitab di saar woo xam ne juróom-ñaari aaya la waaye boo doon calculer ay baatam ñaar fukki baat lay doon ak juróom-ñett baati faatiha ñaar fukk la ak juróom-ñett mooy tolloog rëddi baaraam yi yàlla wërsëgal nit ci loxo xam naa sax danañ ci sàcc rek ci barkeem mag ñi nga xam ne dañ ci daan def taxsin boo xam ne bu ko nit ki xasee léemoo ci suba wala mu léemoo ko ngoon yàlla mën na koo dimbale bu ñu doon dajale asamaan seeg suuf sax mën na ci mucc tabaarakallaahu bu daan xëy daanañu def ne bismillaahi rahmaani rahimi alhamdulillahi rabbil alamina arrahmaani rahimi maliki yowmi diini iyaaka naabudu wa iyaaka nastain ihdina siratal mustaqima sirata ladina anamta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala daalin mu tolloog rëddi baaraam yi nekk ci nit tolloog baati faatihatul kitaab taxsin bu mag la boo xam ne ku ko xëy lee moo bu ndoon dajalee asamaan ak suuf ci baax ak yàlla dañ ci mucc ku ko tamit ngoon gi nga léemoo ko bu ñu doon dajalee asamaan ak suuf danga ci mucc loolu mi ngi mbokk ci min asaari tariqa tabaarakallaahu fatiha googu fatiha nag tedd gim tedd moo waral mu bëri ay tur fatiha moom kenn rek am na lu mat ñaar fukki tur benn jëmm nag boo xamee ñaar fukki tur su fekkee am na lu muy tegtale xanaa li borom xam-xam yi wax ne inna kasratal asmaai tadullu ala sharafil musamma mu ne bëri tur day tegtale tedd ak la ñuy tudd fatiha turam yow bokk na ci fatiha dañ koy wax da danañ koy tuddee sabuul mathani danañ koy tuddee umul kitab danañ koy tuddee suratul kanzi danañ ko tuddee kaafiya dañ ko tuddee waafiya dañ ko tuddee waaqiya di ko tuddee shaafiya di ko tuddee tamit shifaawu ak ruqiyatu danañ ko tuddee tamit masalatu munaajaat tafwid su'aal fatihatul quran dañ ko tuddee tamit suuratu salaati mooy julli maanaam euh, saaru julli bi ndax julli mënta wér génn julli ci farata te fekk af naa te fekk jàngaloo fatihatul kitab moo xam yow kenn la moo xam ilimaan nga da foog nga jàng fatiha mu des nag ñettay julli su fekkee da ngay julli yow kenn boo jàngul fatiha sa julli gi wérul ndax yonentu bi ne la salaata liman la fatiha am riwaay ba ne laa laa salaata liman lam yaqra bi fatihatil kitab kon boo julli yow kenn foog nga jàng fatiha su fekkee da ngay julli tamit jiite nit ñi soo jàngut fatiha dugg nga ci laa salaata liman laa fatiha laa salaata liman lam yaqra bi fatihatil kitab waaye nag ñetteel ba mooy da ngay julli ñi jiite ñaari julli la nga mën a jiite benn mu nekk julli ñuy wala mu nekk julli gu ñuy yeelu buy sopp nañ nga jàngandoor ànd ak ke lay jiite waaye xattaa li nga doon jàng bu jeexut bu rukkoo da ngay bàyyi nga dem rukkoo ànd ak moom te du yàq dara ci julli ga su fekkee julli biral la nag moom da ngay noppi nga déglu ko ndax kat yàlla dafa ne ida quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun moo tax ci mazhabu Malik bu la nit di jiitee julleeg biral yow waruloo jàng ndax jàngam moo yóbbuwaale seen jàng loolu tamit sax al yonent bi wax na ko yonent waxal na boppam ne xawlul imaam yi xawlukum mu ne waxi mooy seen wax ndax su fekkee dañu bokk lu ñuy def di ko defal kenn doyloo kenn ci suñu biir mu war koo jiite kooka bu waxee waxaaleen la ñëpp ñun ñi tey bu ñu amoon audience ak président wala génn kilifa te li ñu bëgg lenn la ci suñu gox wàllu courant la wàllu ndox la su boobaa buñ bëggee wax ñun ñëpp wax nga jaxasoo ba kilifa du xam lu muy defati waaye ñu tànnee kenn ne ko waxal ñu bu waxee rek yóbbuwaale ñu waaye nag su fekkee dañu war a gisee kilifa bi te duñ gisee moom kenn ku nekk mën ngaa wax sa soxla te kenn du la dégg su boobaa ñëpp mën nañoo wax moo waral buy jullee gi yàllu donte dañ laa jiite man ngaa wax parce que wax nga kilifa gi sa soxla kay wax na soxlaam moom ni dégg waaye kenn déggul sa su fekkee tamit maanaam julli koo xam ne kenn la mi ngi mel ni yow mu gisee audience kenn su boobaa sa soxlaay bopp la boo fa nekkee mu laaj wax ca kaw waxal ca kaw bu laajee wax nànk tamit waxal nànk ndax moom rek lay dégg kon ñett yi rek ñoo fi nekk moo waral kon lu mat juróom-ñetti fukki saxaba ci saxaba yonantu bi d'accord nañ ne bu la imaam di jiite boo jàngut faatiha tamit sa julli moom wér na te loolu tamit julli gi sax feeñal na ko yaa ngi nii tey boo duggoon ci julli tardé maanaam faatiha tardé saa ñëw fekk imaam di rukkoo nga kabaar xarmal fekkee rukkoo ba sa cër ya dal ca bokk ga ca rakka ba te fekkee hoo maanaam saar wa ak fekkee hoo faatiha ja kon nag ba yonent bi ne la salaata liman lam yaqra bi fatihatil kitab am la mais dañ koo taxsiisal ci usul maanaam boobaa ni ñu ko taxsiisalee da ngay laaj ne ñaataay julli ñu ne ñett nga ne kon ñaar ñaar moom la salaata liman lam yaqra bi fatihatil kitab mooy kuy julli yow kenn wala ngay julli jiite waaye su fekkee nag dañ laa jiite su boobaa yonent bi dafa wax ne xawlul imaami xawlukum demal ci Muwatta da nga fekk xadis boobu kon loolu nekk na loo xam ne lu leer la fatihatul kitab moomu tamit wax naa la turam ya bokk na ca danañ koy tuddee maanaam suuratu ruqiya mooy saaru mocc wi ba jamono yàqoogut nit nekk fa mu newoon lu nit tawat wala ci soxlay àdduna ci problème boo ko jàngalee faatiha rek soxla ci waaye nag léegi faatiha ma nga fa mu nekkoon waaye ñun ñoo ne ñoo ne fañ newutoon moo tax nit day am problème moo xam ñàkk feebar la jafe-jafe àdduna la nga jàng fatiha du faju nga jàng xuloo du faj nga wàccee kaamil da am na ñu jàng wàccee ba wàccee ay téeméeri kaamil waa jëne sëgg rek kenn mënu ko taxal kon ko waral mooy nit ñen ñoo ne fañ warutoon a ne waaye fatiha moom ma nga fam fam newoon ba tey waaye nag su fekkoon na ña nga fañ newoon fatiha fekk ñu fam newoon luñ bëgg rek laa loolu mën a faju waaye léegi nit day ñëw wax la problème loo xam da nga ko bind loo xam da ko ñaan waa jëne sëgg doo ko mën a taal mukk waaye gis nga ko yonent bi sallallahu alayhi wa rek ci la daan ñaan li gën a bëri ñaan ku muy ñaan fatiha la ko daan ubbee te lu mu ca ñaan rek yàlla wan ko ko sahabaam yu noonu ba benn bis mos naa yónni benn sariyatu mooy ñàngal xare boo xam ne yonent bi demut ñooña dem ba ci yoon gis genn gàdd ak arab toog ñu ñaan leen ne ñu de dañoo xiif bëgg a lekk bëgg nañoo naan ñooñu faale wuñ leen yàlla dogal ñu dem ba wan leen gannaaw rek doomi buur ba jaan matt ko ñeen nag am problème yónnee ne gaa yi romb fi de dem leen ngeen laaj leen ndax amul ci ñoom ku ci mën a mocc mocc ak jaan kenn ci saxaaba yi taxaw ne man naa mocc ñëw ba mu ñëwee ñu indil ko doomi buur bi mu jàllar bi ko njàng faatiha tafli ko rek jaan ja maanaam wàcc ñu jël xar yu bari ak ay gàtt boole ko moom ne ko lii ñoo la ko weexalee moom nag ñu mucc a lekk dara ba mu ñëwee wax ko yonent bi ne ko ah man de tey dama am gis ku am problème tànkam di métti jaana ko matt faatiha laa ko jàngal waaye gis nga jaan ji wàcc na xar yi yëpp ci ay gàtt moom ci lañ ma ko weexalee ma ne bala ma koo lekk fokk ma laaj la ko yonent bi ne ko lekk ko waaye nag sédd ma ci bu ma ci fàtte kon ci lañ jëlee ne weexal dagal na kooku kon mooy ci njëkk a wax yonent bi loolu yonent bi yëkkati wax ko loolu ne ko mën nga cee lekk waaye bu ma ci fàtte jox ma ci sama wàll te kooku faatiha la ko jàngal donte faatiha sax du lu leen la ñuy jàng nekk fañ nawoon rek kon loolu tax ñu ko tuddee saaru saaru mocc wi waaye gis nga ko tamit dañ ko tuddee saar saaru shifa mooy saafara yonentu bi daana wax ne ku faatiha mënta saafara xul walaaw mënut laa saafara dara mënut laa saafaraati kon mag ñi ci yooyu rek lañ daan faj seeni soxla am na mel ni mag ci mag ñi dafa dem benn waaye dafa ñëw diis ko soxla bu rëy wax wax ju dul jeex mu bindal ko faatiha ne ko demal boo demee nga sangoo ko waa ji génn sob firi ko rek ubbi leetar bi fekk muy fatiha mu ne man di sëñ bi dafa may fontoo li ma ko weexal ni mu toll fatiha rek la ma bindal daal di ñëwaat ci sëñ bi ne ko ah man di sëñ bi fatiha rek nga ma bindal xanaa da nga juum ña jaawalee saafara yi wala déet mu ne ko fatiha laa am bi aw ma lu gën a rëy fatiha mu ne ko fatiha ñëpp xam nañ ko mu ne ko bindal moom mu bind bi mu paree mu ne ko taal mu taal mu ne ko booleel ñaari téere yi nga lakk leen waa ji daal bay bosam di jege taal ba rek la lakk ba ko sëriñ ba joxoon lakku mu bëgg koo jaral mu ne ko ku yàlla dina la dimbale kenn mënu laa dimbale jugal nga dem kon mag ñi lépp luñ doon def ci fatiha lañ ko daan defee kon fatiha ngoog di juróom-ñaari aaya di téeméeri xaraf ak ñeent nekk ñaar fukki baat timit ak juróom-ñett muy saar woo xam ne li gën a wér te gën a siiw ñaari yoon la wàcc ci yonent bi ñaari yoon wàcc na Makka waaye wàcc na tamit Madina ndax kat wérul ci sunna ne yonent bi mas naa julli génn julli gum jàngul fatiha loolu gisuñ ko ci sunna te nag ñu ngi farataalee julli ci moom ca màkkatal mukarram kon ñu ne jamono dañuy farataal julli lañ wàccee woon ci moom fatiha ba mu ñëwee madina tamit ñu wàccee waat ci moom fatiha kon wàccee nañ ko ñaari yoon moo waral booy seet turam yi sax loolu dana ci feeñ turam yi ñetti tur ñoo ci gën a siiw fatihatul kitaab siiw na umul kitaab siiw na waaye sa sab'ul masaani tamit siiw la faatihatul kitaab mooy moo hubbi lépp mooy hubbi bunti aljaana mooy hubbi bunti xéewal yi moo hubbi téeréeb yàlla bi mooy hubbi ñaan yi mooy hubbi jëflante yi kon bëri lu muy hubbi moo tax ñu tuddee ko faatiha ji tekki aji hubbi ji mooy caabi umul kitaab umu mooy aslu mooy cosaanab téere bi moo waral boo jàngee faatiha moom kenn mel na ni jàng nga alquran lépp danaa ci yegsi sa boxul masaani ci boo seen tudd ko mooy yi ci njàng ñenn ngeen ne déedéet mooy juróom-ñaari aaya yu ñu ñaaral ci wàcc ñu ne ñaari yoon la wàcc wàcc na Màkka wàcc na Madina comme ni la ko yàlla wax na ko ne ko wa laqad aataynaaka sab'an minal masaani ñu ne ñaar sab'an minal masaani bi mooy mooy juróom-ñaari aaya yu ñu ñaaral ci wàcc Màkka ak Madina ñenn ngeen ne déedéet mooy juróom-ñaari aaya yu ñu ñaaral ci jàng parce que boo see Fatiha li ëpp ci ay baatam ñaari yoon la ñëw yaa doon jàng Fatiha léegi ne bismillahi rahmaani rahim wax nga rahmaani rahim kon jàppal nga déparaat ne alhamdulilahi rabbil alamin waxaat nga rahmaani rahim kon rahmaani rahim ñëw na ñaari yoon ba nga ne rahmaani rahim ne maliki yawmi diin ne iyyaka na'budu waxaat wa iyyaka nasta'in kon iyyaka baata iyyaka ñëw na ñaari yoon nga waxaat ne iyyaka na wa iyyaka nasta'in ne ihdina siratal mustaqim ne siratal lazina kon baatam sirata ñëw na ñaari yoon nga waxaat ne an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala daalin kon baatam alayhim ñëw na ñaari yoon ñu ne kon nag rahmaani rahim ñaari yoon iyaaka ñaari yoon ba tey maanaam siraata ñaari yoon alayhim ñaari yoon ñu ne kon nag mooy juróom-ñaari aaya yi ñu ñaaral ci njàng ndax li ëpp ci ay baatam dañ koo baamu ñaari yoon ñeneen nga ne déedéet juróom-ñaari aaya yu ñu ñaaral ci wàcc la wàcc na Màkka wàcc na Madina kon loolu tamit di ko tuddee sabool masaan yi gis nga ko tamit yàlla toujours limab juróom-ñaar da koo neex ba tax na secret yu bari yàlla nga ko taxañ ci juróom-ñaar boo doon seet tey asamaan si juróom-ñaar la boo doon seet tey suuf si juróom-ñaar la boo doon seet tey yow mi aji màkk di wër kaaba ga juróom-ñaari yoon nga ko wër gis nga ko tamit maanaam ba ngay tamit safa ak juróom-ñaari yoon la taxawaay mooy juróom-ñetti yoon kon secret yu bëri ci yàlla lu yàlla yi dëxëñ boo ko seetee muy set moo tax moo tax tamit maanaam faatixatul kitaab ñëw tamit di set aaya waaye faatixatul kitaab mii bu la neexoon nga ne mooy alquran alxuraan li muy rëy rëy rëy juróom-ñaari juróom-ñeenti yëf lay traité juróom-ñeenti yëf rek moo nekk ci alxuraan alxuraan boo ko seetee am na sant yàlla ñaareel bi alxuraan am na dëxal alxuraan am na tëkku alxuraan am na jaamu yàlla ci cadre sharia am na jaamu yàlla ci cadre xaqiqa alxuraan am na ñaan alxuraan am na qissa alxuraan am na waaraate yooyu yëpp boo ko doon tënk mi ngi ci biir faatixatul kitaab bi nga commencé fatiha ne alhamdulilahi maanaam rabbil alamin xeeti sant yàlla yépp dugal nga ko ba dugalaale nga sax wéetal yàlla waaye gis na ko tamit ba nga ne arrahmaani kooku dëhël la ba nga ne arrahimi kooku tëkku la ba nga ne maliki yow mi diini kooku jox nga yàlla gëddëm lu mu am lépp jox nga ko lii ak manque tamit dàqal nga ko ba nga ne iyaaka naabudu jaamu yàlla ci cadre sharia la wa iyaaka nastainu jaamu yàlla ci yoonu xaqiiqa la ihdina siraatal mustaqima ñaan la siraatal lazina anamta alayhim xissa la gayril maxdubi alayhim wala daalina waaraate la kon fatiha juróom-ñeenti yëf lay traité boo ñëwee tamit fatiha alquran tamit juróom-ñeenti yëf lay traité yépp ñu ci biir fatiha tul kitab di lay xamal tamit ne fatiha mooy alquran alquran li muy rëy rëy ñëw na leeralal ñu juróomi ponk lislaam yi muy tuddubaatu baatu bi julli julli juróom or weeru koor joxe asaka aj màkka juróom yépp mi ngi ci biir fatihatul kitab laa ilaha illallah am na ci alquran yaa jàngoo ne faxla mën nahu laa ilaha illallah julli am na ci alquran xaafizu ala salawaati wa salaatil wusta joxe asaka am na ci alquran yaa jàngoon maanaam xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tusakkihim biha xool weeru koor am na ci alquran yaa jàngoon kutiba alaykum siyam aj maaka am na ci alquran yaa jàngoon walillahi ala nnaasi hajjul bayti man istataa ilay sabila waaye juróom yooyu yëpp mi ngi ci biir fatihatul kitaab am na tudd baatu seede bi am na julli am na woor am na joxe asaka am na aj màkka benn bu ci nekk nag dafa dafa ñëwee ci turu yàlla ndax faatiha juróomi tur yàlla la nekk tur bu ci nekk benn ponk lay junj ci ponk yàlla yi bi ci njëkk moo doon tudd baatu bi yaa ko njëkk waxee ba nga ne alhamdulilahi tudd nga baatu seede bi moo tax yonentu bi ne kuy wax ne alhamdulilahi ak ki wax laa ilaha illallah ki wax alhamdulilahi moo ko ëpp yoon ñu ne ko lu tax mu ne ki wax alhamdulilahi dañ ko bindal fanweer ki wax laa ilaha illallah ñaar fukk ñu ne ko lu tax mu ne ki wax laa ilaha illallah dafa wéetal yàlla rek waaye santut ko ki wax nag alhamdulilah dafa boole wéetal yàlla ak sant ko moo fan fanweer lañ koy bindal. ba nga ne tamit rab bi rab bi mooy tekki ajiyaar kuy defar ku koo xam ne tamit dana dana yéwénal baaxal la ku tudd loolu sa xel daj julli ndax julli day baaxal jaamam yàlla bi di dugal ci moom jikko yu baax di ko teqale bépp jikko yu bon moo tax yàlla ne woon inna salaata tanha anil faxshaayi wal munkar tana moo war a muy rabbil alamina yàlla mooy yar ay mbindeefam teg leen ci yoonu siraatal mustaqim ba nga ne tamit arrahmaani dugal nga bi maanaam woor weeru koor ndax loolu yërmande la woor weeru koor boo bokk na ci xëdëf bi tax yàlla sant ñu ko bëgg ñu am yërmande rek moo waral maanaam mu mosal la xiif mosal la mar ci lu mat fukki waxtoog ñaar léeg-léeg mu ëpp ko léeg mu manqué ko bu ëllëgee bu ñu taxawee sa kanam sama kër ceeb nekkut fa tey taxalu ma nga ne man de mosoon naa xiif lu métti la taxawal ma dimbale ko waa ji ñëw ne la sama robinet yu coupé nañ ko amatuñ lu ñu naan amatuñ ndox mu jëfandikoo nga ne ñàkk ndox lu jëf lu métti la ndax man toog naa fukki wax toog ñaar wala lu ko ëpp yoo xam ne naanu ma kon mar lu metti la dimbale ko ca facturam ba kon maanaam rahmaan moo taxaw taxawaayu weeru koor ndax yërmande rek moo tax ñu mën a dimbale nit waaye nag tey bu weeru koor amutoon ñu bëri ba ne leen xiif métti na ndax ñu ngi yore seen frigidaire ñàkku dara boole leen tamit mar am na duñ ko xam ndax maanaam luñ luñ war a jëfandikoo yépp am nañ ko waaye raxiima tamit mooy joxe asaka ku amul yërmande dëgg-dëgg mënoo joxe asaka yàlla jox la lu ëpp sa soxla nga denc ko ren ba déwén te defaloo ko lu tax mu jox la ko ñim ko xañ defuñu ko lu tax mu jox leen mu xañ leen ko nga nangoo jël li nga am bokk ko ak ñoom kooku ku amul yërmande mënuloo ko waaye maalika yow mi diine mooy aj màkka ndax maanaam mooy tekki yàlla mooy buural bi sa fay xam nga bisa fay ba di ma di maanaam àllaaxira euh, ñépp ay daje ci mennam pénc doo xàmmee buur doo xàmmee baadolo kenn du sol tubay kenn du sol dàll ñépp dañuy raflewu dox maanaam ci ab fàndaañu ñëw di wuy si benn buur pour mu fay leen seeni jëf loolu niroo nag lool aj màkka doo fa xàmmee buur doo fa xàmmee baadolo amul sol yëre ñépp rek dañuy teraxlaayu lëkkaayoo benn yëre bokk lu ñuy def wuy si benn buur di wër genn kaaba ngir yaakaar mu fay kon lii muy juróomi turu yàlla yi nekk ci fatiha turu wu ci nekk tamit ak ponk ak boppam ponk bu ci nekk tamit lay junji kon fatihatul kitaab a ngóob boo ko see tamit fatihatul kitaab gannaaw bi mu jàngalee juróomi ponk lislaam yi jàngale alquran ak boppam jàngale na diine ndax bu ñu laajee diine ñett la diine mooy lislaam iman ihsaan ñett yëpp mi ngi ci fatihatul kitaab yow bi nga ubbee fatiha doolee ci bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi diin li ko dolee ba ci maliki yawmi diin yépp yaa ngi jàngale mbiram gëm mbiram imaam muy gëm yàlla muy imaam li ko dolee ci iyaaka naabudu iyaaka nastainu kooku yaa ngi jàngale mbiram lislaam war yàlla rek la ñuy jaam moom la ñuy di ko dere ci ihdina siraatal mustaqim ba ko saar way jeex mi wala daal yi nag yaa ngi jàngale rafetal ba tax na ne maa koy maa ngi koy rafetal di ko sàkkoo ci kenn di ko mën rafetal muy ñaan rek mu teg ma ci yoonu siraatal mustaqim muy yàlla kon boo seetee kon fatixatu kitaab ëmb na diine ndax moo ëmb lislaam ëmb iman ëmb tamit bi maanaa ihsaan mbooleem tamit alaqa yi ñuy soxla yépp mu ngi ci fatixatu kitaab alquran li ko tax a jug yépp bokk ci nit ki fexe ba defaru nit ki texe tamit gannaaw bi mu defaroo fexe ba a maneeg boromam ñaareel bi tamit mu fexe ba maneeg moromam yépp mi ngi ci faatixatul kitaab ndax nit mënul defaru mukk te alhamdulilahi rabbil alamina rahmaani rahimi maliki yow mi diine jiituwut ci moom yooyu kum sax ki sappal defaru nga iyaaka na'budu ku ca nekk wa iyaaka nasta'inu mane nga sa borom ihdina siraatal mustaqima jooju nga jaxoo dugalaale ci ñëpp tànn ne ñett yi wala fi ne benn bi rek nga ci tamit sa morom ñëpp kon lépp lu ñuy soxla rek maanaam mooy fatiha moo tax fatiha mooy alquran ku ko firi moom kenn firi nga alquran lépp ku ko gëm moom kenn gëm nga alquran lépp ku ko jàng moom kenn jàng nga alquran lépp moo tax ulamaaw tafsir dañuy wax ne téeméeri téere ak ñeent ñoo ma sa bàyyeekoo ci yàlla ñëw ci jaamam yi téeméeri yépp yàlla dëxëñ na ko ca ñeent ya ni ngi ci tawreet liñ ci sabur furqaan boo leen jàngee ñoom ñeent jàng nga téeméeri téere yépp waaye tamit boo seetee ñeenti ñetti téere ya tawreet ak linjiil ak sabóor yépp dëxëñ nañ ko ci alquran boo ko jàngee moom kenn jàng nga téere yépp moo tax ko tuddee quran mu bàyyi ko ci xar u bi maanaam jàmbo dagale ñu dagale téere yépp moo tax waaye alquran tamit yéppam jël nañ ko dëxëñ ko ci fatihatul kitab moom kenn boo ko jàngee firi ko wala nga gëm ko jël nga alquran lépp ñu ne tamit fatihatul kitab léppam jël nañ ko dëxëñ ko ci basmala bi mooy bismillahi rahmaani rahim gi bismillahi rahmaani rahim gi tamit la ca nekkoon lépp dëxëñ nañ ko ci baag yi ndax baagoogu bii kaana maa kaan wa bihi yakunu maa yakun kon gis nga basmala gi ñu ubbee fatiha ji mooy lépp basmala ak boppam boo ko doon calculer fukki xaraf la ak juróom-ñeent fukki xaraf la ak juróom-ñeent basmala bismillahi rahmaani rahim bëkki néegi safara ya nga xam ne ñoo jël ni ñu di leen dugal kenn du génn fukk lañ ak juróom-ñeent moo waral boo jàngee bismillahi rahmaani rahim xaraf wu nekk dana la musal ci benn bëkk néeg ak safara ku mukki ci bëkk néegi safara mukki ci safara ndax alquran dafa ne woon alayha tisaata ashar waaye na ba mu nekkee alayha tisaata ashar bi basmala tamit nekk fukki xaraf ak juróom-ñeent boo ko jàngee rek mukki ci ñoom basmala tamit boo ko seetoon dafa ñëw ngir firi mbooleem turu yàlla yi turu yàlla yëpp yu ñu soxla tur yàlla yëpp juróom-ñeent fukki turu yàlla yi ak juróom-ñeent wala nga ne yàlla ñetti junni tur la am junne bu njëkk ba malaaka yi rek ñoo ko xam junneem ñaareel ba yonantu yi rek ñoo ko xam junneem ñetteel ba mu jël ñetti téeméer ya ay turam def ko ci tawreet linjiil ma def ñetti téeméeri tur yàlla zabur am ñetti téeméeri tur yàlla alquran ñëw am juróom-ñeent fukki tur yàlla juróom-ñeent tur yooyu yépp nag jàppal ne dëkk ngi ci basmala boo waxee basmala rek tudd nga mboolem ñetti junne tur yàlla ya ya malaaka ya xam ya yonantu ya xam yi tasaare tamit ñetti téeréem yi li ko firndeel fukki xaraf yi ak juróom-ñeent xarafu ci nekk benn turu yàlla lay junj loo commencé woon bisimi boo seetee baa gi mi ngi junj turu yàlla bu ñu tuddee basiir ak turu yàlla bu ñu tuddee baaqi ak turu yàlla bu ñu tuddee barbu muy baa gi nga jël maanaam siin gi muy junj samiixu salaamu nga junj miim gi muy junj maliku nga junj nga jël alif gi muy junj allahu nga jël laam gi mu junj latiif nga jël maanaam haa gi mu junj haadi nga jël raa gi muy junj rasaaku nga jël maanaam xaa gi mu junj xaliimu nga jël nuun gi mu junj naafixu kon mel na ni ku tudd yàlla ci bés bisimilah rahmaani rahim tudd nga yàlla ci turam yépp moo tax bisimilah rahmaani rahim mooy lépp yonent bi nee na guddi gi ma rañaanee damaa dem ba ñu gaaralal ma aljana gis naa ko ma dem ba ci kanam ma taxaw gis benn euh, euh, gis ay sewnde ñeenti sewnde yoo xam ne ñu ngi ball rek di yool benn bi ndox la benn bi soow la benn bi lem la benn bi sàngara la malaaj jibril ne ko ñeenti sewnde yii di daw fan lañu bàyyeekoo ak fu ñu jëm jibril ne ko fi ñu jëm de xam naa ko waaye fi ñu bàyyeekoo xaw ma ko xam nga fan lañ jëm mooy kawsar ji la yàlla dëxal na inaa kaw kawsar waaye fu ñu bàyyeekoo nag xaw ma ko ndax dangaa bëgg ko la ko xamal mu ne waa mu toog rek mu ne menn malaaka ñëw ne ko gëmmal mu ne man Seydina Muhammad ma gëmum mu toog ba ci kanam ne ma xoolal ma xool rek taxaw ci benn ma seen benn xubba bu rëy ba ma gisee xubba ba mu ne ma ñëwal ñu dem maag moom ba ñu jib xubba ba mu ne ma duggal ma ne ko naka laay duggee te ñu tëj bunt bi mu ne ma waxal bisimilah rahmaani rahim mooy caabi bi ma wax ko rek dugg ba ma duggee fekk naa xubba bi am na ñeenti koñ koñ yi mu ne yaatuwaayu xubba bi bu ñu jëloon àdduna li ci biiram lépp sànni ko ci xubba booba day benn benn ngeen boo sànni ci ab àll ci yaatuwaay mu ne nag waaye ñeenti yi koñ fekk naa maanaam ña ngi ca bind allahu ña ca bind kon bisimi miim googa ndox di ca génne beneen ba ña ngi ca bind allahu maanaam haa googa di haawu saxiira ga soow di ca génnee beneen ba di rahmaan ña ca bind ca miim ga maanaam sàngara di ca génnee beneen ba di rahimi miim ga ña ca maanaam ca ca ca miim ga asal muy lem ba nga cay génnee ci laa xamee ndeke cosaan yépp ci wërsëg yi ci xéewal yi mi ngi dox nga ci basmala moo tax sax ku koy am na ci ay limam yàlla mën na laa teqale ñàkk loo soxla rek yàlla faj ko moo tax mag ñi ci basmala daana ñi def lu nekk kon nag bisimilahi rahmaani rahim angoo moo tax mu ne bisimilahi sos na ma sama wax ci tudd turu buur bi arahmaani buur bay xiwalaa koon bépp mindéef ci àdduna fii ci àdduna yàlla rahmaan la tudd dana xëpp xéewalam ku ko weddi ba mu ko ki ko gëm parce que yàlla compté wut àdduna waaye arahim yi mooy buur bay xéewal ku ko soob ci àllaaxira bu àllaaxira jotee nag yàlla rahim rek lay tudd ña ko doon jaamu mu nangu seen ak njaam rek lay dugal aljaana yàlla nañ ca bokk boo seetee kon rahman moo gën a matale ndax xéewal ak àdduna yàlla tënkut ko ci ñu ko gëm ñépp rek dana xéewal mala yi malaaka yi jinne yi njanaaw yi nit ñi nit ña ñoom yéeféer yaag yépp léegi-léeg xéewalam ya dana ko tuur ku ko weddi ba koo ko ëppale ko ki ko gëm léegi-léeg ki weddi yàlla am wér gi yaram boo xam ne ki gëm amut ko léegi-léeg mu am njaboot ci doom ki gëm amu ko léegi-léeg mu amee milliard loo xam ne ki gëm yàlla amut ko yàlla moo konte wut àdduna ba yonantu bi nee na mbaggam yoo bu fekkoon ne amoon na poids ci yàlla ba toll àdduna bu amoon poids ci yàlla ba toll ni mbaggam yoo mu ne kon yéeféer du fi naan juróata maa in goo xam ndox waxut kaas sax goo xam ndox la wax moo tax daana wax ne àdduna médd la ay tan rek ñoo koy xëccoo moo tax yàlla nag yëkkati wërsëgu àdduna jox la ko loo bëgg faj mu faju tekkiwul ne yàlla dafa jubóog yow de yàlla xëy na tamit wërsëgu àdduna say soxla yu jafe loolaal mu dëgër tekkiwul ne yàlla dafa laa kenn ku ne ci yéen ñaar nattu la kii jox na ko seet ba xam ndax dana ci def lu baaxam déet kii xëy na ko seet ba xam ndax dana soxoram déet kon rahmaan moo gën a matale ndax xéewal la boo xam ne ñépp a ci yàlla moo tax yonent yàlla ibrahima ku xaw a fiir la ci waxin bi mu tabaxee màkka mu mel nam war a mel dafa ne yow yàlla képp ku dëkk ci dëkk bi di jullit sa wërsëgal ko waaye ku fi dëkk di ab yéeféer bu ko mosal dara yàlla ne ko wax ah ak yow tabaxal rek man ku ku dëkk ci dëkk bi ku wéttee ku ku ku ma gëm laa yemale ñëpp laay jox danaa jox ñëpp wata man war su ahloo min samaraat man amana minhum billaahi wal yawmil aaxiri yàlla ne ko qaala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan waaye suma abturu ila azaabi naar wa bisal masir kon àdduna faaliwuma ko ku fi ne rek dinaa la jox fekk yaa ngi fi rek dinaa am lu ma jox gi ma la ko jox na tekkiwul damaa jubóog yow waaye gis nga rahim kon moom mooy ñi ko gëmoon rek di ko jaamu mu nangu seen ak njaam waaye boo leen seetee ñoom ñaar tamit raxiima xëpp doole ba tey ndax rahmaan yërmande juñ kooj la raxiim yi nekk yërmande juñ koojut parce que yërmande yi àllaaxira koojuñ ko amul feebar amul ñàkk amul dégg lu la naqari amul gis maanaam lu la ñëw lépp rek maanaam lu neex lay doon àllaaxira nag la muy àdduna nag la yërmande ji rëy rëy dafa booleeg luñ kooj léegi nga dégg loo xam ne bëggoo koo dégg donte maanaam sa xaalis a ko jëndoon léegi-léeg nga gis loo xam ne bëggoo koo gis donte yaa ko jënd ci sa xaalis léegi-léeg tamit ci ni ko mën a misaalee mi ngi mel ni rahmaanu àdduna dafa mel ni malaat bi ak médecin bi xam nga tey malaat bi dana feebar ñi bindal ko ordonnance yoo xam ne wax dëgg yàlla dana naqari ci moom ba du ko bëggoon du ko bëgg naan bu doon sax ku ñu contrôlé mu nekk xale buy ay per wala ay pikir dafay mujj sàññi ko wala mu feebar feebar boo xam ne li mu laaj foog ñu xar biir bi xam nga loolu bokku ci yërmande dañu xotti sa biir bi te dañ laa yërëm aha kay yërmande la ndax buñ xarul biiram bi mën na caa doxee ñu ngi koy opéré waa bi ñu ko opéré mën naa dee kon raxmaanu àdduna noonu la mel la mais dañ koo kooj dana dana dem ba jaxase lu naqari ak lu neex xale bi tamit nga jur bëgg ko ci sa xol ëmbal ko sa bopp yërmande terewul yaa ngi koy dóor lu tax da nga koo yërëm ndax dangaa bëgg bu ëllëgee mu baax mën a tegu ci yoonu siraatul mustaqim waaye raxim nag moom amut loolu yërmande duñ kojut la lépp maanaam dafa sell neex ci looy xool looy dégg looy laal looy gis amul dara lu lay naqar lu lay mën a déranger moo tax kon mu ne bisimilah sos na ma sama wax ci tudd turu buur bi arahmaani buur bay xewalaa kon bépp mbindeef ci àdduna arahimi buur bay xewal ku ko soob ci àllaaxira alhamdu mbooleem cant yépp lillaahi ñeel na yàlla rabbil alamina yàlla mi nga xam ne mooy borom mbindeef yi de boo seetee sant al gi ñenn ñi dañ koo def muy alu istigraqiya moom la fuqahaa yi d'accord bu fekkee ci awliyaa yii la mutasawifuuna yi dañu jàpp ne al gi al ahdiyu la ñoom dañ ne yàlla dañoo digal ne nañ ko sant bam ñu digalee ne nañ ko sant ñun ñu lottu ci sant ko ndax yàlla kenn mënu ko sant ndax boo ko doon sant gannaaw bi ñu ko santee sant koo ko sa sant nga cee waraat loolu la ko yonentu yàlla Musaa waxoon yow yàlla yaa ma digal ma sant la te li ma jox ba ma lay sant yaa ma ko jox te soo ma ko joxee ma jëfandikoo ko ci la li nga bëgg ba santaat la sant googa beneen sant da cay wax yàlla na ne ko xam gi nga xam loo rek sant la léegi nag ba ñu kon nañ ko sant ñu lottu ki sant ko moom mu sant boppam bi mu santee boppam nag ñu sant leen ma ni ma santee sama bopp moo war a ñu jël al ji def ko muy ali ahdu yu mooy sant gi yàlla santoon boppam digal ñu ñu ko cay toppandoor ba tey moom moo ko moom ñenn ñi di fuqaaw yi ne al gi alu istixraaqi la mooy dafa labal xeeti sant yépp muy ñeent mu yàlla mu sant boppam yàlla njëkk a sant boppam bi mu bindee asamaan bind suuf bind mala yi bind malaaka bind li fi nekk lépp dafa sant boppam ne alhamdulillahi lazi sama samawati wal arda ñaareel bi mooy yàlla mu sant jaamam ndax yàlla bu la diggalee lu baax nga nekk ca mu terale lu bon nga bàyyi ko foog mu sant la ndax am na ñu muy reggal moom yàlla te moom leen a regle nanguwul yàlla regle leen moo waral mu sant ayuba dugal ci képp ku mel ni ayuba ne ni'mal abdu innahu awab ñetteel bi mooy tamit jaam bu sant yàlla parce que tamit baax ak jàng alquran ak wax lu baax kenn mënu ko lu dul da nga ko jaarale yàlla la ci dimbale moo la defal tawfiq moo tax nga ne alhamdulillahi alladi hadana li hada ba ca tegu nag mooy yàlla lépp lu mu lay defal ci moyen bu mu mun di doon ci xam-xam ci njëriñ ci nit rek lay jaar door a ñëw ci yow amul kenn ku mën a jariñ sa bopp lu lay yàlla jox rek ci loxoom nit lay jaar ñëw ci yow léegi nag yàlla ne boo santee nit kooka mel nga ni sant nga ma man yàlla sant yëpp yàllaa ko moom waaye boo jëlee sant tamit danaa ba mu nekkee ñeent ñett la ñi ngi koy mën a defee ci ñetti organes yi benn benn nga sante yàlla ci làmmeñ wala nga sante yàlla ci xol wala nga sante yàlla ci yeneen cër yi sant yàlla ci xol moo ci ëpp doole moom la alquran ne wa ma bikum min ni'matin fa minallaahi lépp lu ngeen am ci xéewal ngeen yëg ne man yàlla maa leen ko jox rek kooku sant la bul yaakaar ne sëriñ bu baax la ko jox yaay ju baax baay ju baax yooyu yëpp sabab la waaye doon nañoo joxe yàlla rek a joxe kon yëg gi nga ko yëg rek kooku sant la beneen bi ci tagu mooy bu la yàlla mayee moyen maanaam nga toog lekk ba suur ne alhamdulilah rabbi alamina passé wul sa mbaxadami fexeel ñu xiif lekk yàlla may la xam-xam nga toog naan alhamdulilah fi hadana demut fenn fexeel ba ñu réer xam yàlla tamit may la xel mu rafet nga loolu dugg génn ca nga jàpp naan maa ngi sant yàlla sama xel mi demul fenn fexeel ba ñu dof ñu muus ñi nga xam ne yeewuhu ñi leen di nax fexeel ba bu leen kenn mën a naxati su boobaa kon loolu mooy sant yàlla ci effort bi la yàlla defal moom la yàlla waxoon waa kër daawuda ne i'malu ala daawuda shukra bi ci gën a suufee nag moo gën a bëri ci ñun mooy sant yàlla ak làmmiñ rek lekk ba suur ne alhamdulillahi rabbil alamin yor oto alhamdulillahi rabbil alamin kooku nag moo ci gën a suufee moom la alquran ne wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis kon ñetti sant yi la waaye ñetti sant yëpp boo ko seetee ñaar lay tënkuwaat sant benn mu nekk guñ tënk wala muy guñ tinki guñ tënk Malik moo wax ne moo gën moo nekk ci alquran Shafi'i ne guñ tinki moo gën dañ cee coow coow lu yaatu Malik nee na sant yi gi ñu tënk moo gën mooy sant nga yàlla mais dañ koo tënk ci xéewal da nga yor oto bu bees sant yàlla ne maa ngi sant yàlla nu ma wërsëgal oto bi alhamdulillahi alladi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wala bi maanaam nga sol yére bu bees sant yàlla ne alhamdulillahi alladi kasaani hada wa razaqani min xayri xawli minni wala quwa wala bi maanaam nga lekk ba suur sant yàlla ne alhamdulillahi alladi atamani wa ashbaani wa asqaani wa arwaani kon wala da nga koo tënk kon sant yàlla ngir lekk wala nga sant yàlla ngir oto wala nga sant yàlla ngir dëkkuwaay Maalik ne moo gën Saafi ne ko déedéet kon dafa mel ni yàlla bu la joxutoon dëkkuwaay wala joxul la woon waruwaay wala joxul la woon lekk wala amut ko woon ba di ko joxe day mel ni kon xëyoowut sant Maalik ne ko nag al sant sant guñ dëkk rek nekk ci alquran amul genn yàlla bu mos a wax sant ci alquran te tegul ci ne nanga ma tax gisoo sax yonent yàlla Ibrahima ba muy sant alhamdulillahi alladi wahaba li ala alkibari ismail wa ishaqa kon ne maa ngi sant yàlla dem naa ba màgget yaakaaruma woon doom bu may ma doom ba bayaale ma sët kon boog da koo tënk gi nga wax léegi tamit ne alhamdulilahi lafi lu tax nga ne hadana li yàlla moo ma gindi ci lii kon da koo tënk ba ci alhamdulilahi gis nga koo tënk ndax yaa ne alhamdulilahi ne lu tax nga ne rabbil alamina te man kat ci alamine laa bokk kon buñ tënk rek a nekk ci alquran Shaafi'i yu ne buñ tënkee gën parce que moo gën a ñàkk intérêt mooy koo xam ne rek da nga ne sans sant yàlla rek yonent def na yépp sant na yàlla ci kuñ tënk santaat yàlla ci kuñ tënk ndax daana wax ne alhamdulilah ala kulli xaal man daal maa ngi sant yàlla ak nu mbir mi mën a demee kon kooku mooy kuñ tënk kon mooy rabbil alamina alamina mooy monde yi yàlla am yàlla ku bëri monde la am nañu jàpp ne am na trois cent soixante ci ay monde waaye nag soixante yi rek ñoo ñu xam yàlla di ko jaamu waaye trois cent yëpp daanaka xamuñu dara xamuñu sax ne yàlla am na xamuñu sax ne ab yonantu am na ñooña euh, maanaam Zul Qarnayn dajee woon ak ñoom di leen woo ba muy def tukkeem mooma danañ ca yeggi buñ ca yeggee ca fam leen fekkoon yépp ci àdduna bi waaye gis ko tamit ñenn ña ne yàlla li mu am ci monde fukk la ak juróom-ñett 18 monde la am adduna bi ñuy dund benn la ci mais li gën a siiw mooy bu njëkk bi moo tax mu def ko alamina alam ci la bàyyee ko moom nag mufrad bu amul jamoo la booy wax jamoo ji alam mufrad bi tamit alam léegi nag bu ñu ko bëggee jamoo dañ koy def rek jamoo muzakkar saalim yi yéegal ko ca te mooy rafaayee waaw lu muy defati rek yaa moo tax mu ne alamina alamina nag boo ko doon seet ci alquran ñëw na ci baat bi fanweeri yoon ak juróom-ñaar ci la baatama alamina ñëw ci alquran kon yàlla moomu arahmaanu mooy xiw arahmaani mooy xiwalaa kon bépp mi ndeef ci àdduna rahimi mooy xiwal koo sob ci àllaaxira rahmaani gii mu baamu ci la borom xam-xam yu bëri sukkandiku ne bismillahi rahmaani rahim bokkul ci fatiha ñu ne luy seen tegtal ñu ne bu bokkoon ci fatiha yàlla du ko gaaw a baamu wat ni ndax yaa jàngoon léegi ne bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi Cheikh na Tidiane Chérif ne ah kay ci Fatiha la bokk ñaari rahmaani rahim yi bokkuñu lu leen tax a jug rahmaani rahim di nekk ci bismillahi rahmaani rahim dafa sax dàkk ci jëmmi yàlla ja abul ko kenn gi nga xam ne nag mooy rahmaani rahim gi nekk ci saar bi melo la woo xam ne da koo abal ay jaamam able googa ci la bàyyi di yërëmee doomam ku ko ko abal yàlla ci lay doom di yërëmee waajuram ci ngay fekkee ku ñàkk nga yërëm ko fi ngay fekkee ku am problème tamit nga yërëm ko moo tax yonent bi wax ci hadis ne yàlla am na téeméeri yërmande juróom-ñeent fukk ya ak juróom-ñeent yépp denc na ko ba àllaaxira benn ba rek la wàccee ci kaw suuf ñu ci yërëmande kon moo waral kon fatiha bismillahi rahmaani rahim ca la bokk moo waral kuy julli boo ko mënee delloo bismillahi rahmaani rahim li ko waral imaamu Shaafi yu dafa ne aaya la ci fatiha te ku bàyyi aaya ci njërëm mi ci fatiha dangaa war a sujjóot xabla salaam xabla boo ko waree sujjóot ba teqali ko place ba mu yàgg julli nga waaye nag amul kenn ci borom xam-xam yi ku wax ne bisimilah rahmaani rahiim boo ko waxee si julli julli ga yàqu na amul. kon nag julli gu wér ci borom xam-xam yépp moo gën a dal xel julli goo xam ne dafa wér ci ñii te wérul ci ñii demee ci yenn bisimilah rahmaani rahiim dinaa ko gën a tinki wax la ñaata ci ay saxaaba ñoo d'accord ne dañoo war a wax bisimilah rahmaani ci julli dinaa la wax tamit ñi nga xam ne ñoo d'accord ne wuruñ koo wax gannaaw bi ñu d'accordee ñu wax ne dañ koo war a biral donte ne julleeg biral la bu yeelu ñu yeelu ko am ñi wax ne dañ koo war a yar doon ci julleeg biral la te ñuy commencé ci fatiha insha allahu rabbi suñu darsu yi dañ ca mën a yegg ca loola ngir li nga xam ne lu lu lu tink lu yaatu la kon rahmaani rahim a ngoog na ko ngir ay jaamam bëgg ñu bari luñ koy tudd ndax ku bëgg dara dangaa war a bari loo koy waaye nag damaa bëgg yàlla te doo ko lu bari moo tax nga tuddoon ko fële ca saar wane rahmaani rahim yàggaa tudd dara nga waxal rahmaani rahim bëgg dara dangaa war a bari loo koy tudd yàlla mooma nag boo ko xamul maaliki yow mi diini mooy buurab bi sa fay ba bi sa fay ba kenn du fa nekk mooy mooy moom moom bi sa fay ba boo ne maaliki boo ne maliki mi diini mooy buurab parce que bi sa fay moo tax ñaari njàngin la ñi dañu jàng maaliki ñu jàng maliki boo ne maliki fanweeri yi yiw ngay am ndax yu doon toone alquran ku ci jàng xaraf wu nekk da am fukk ci yiw maliki na ñetti leetar la mooy miim laam kaaf fanweer ngay am kon boo ne maaliki ñeent ñeent fukk ngay am parce que ñeenti leetar la kon maaliki moo ëpp moo ëpp yool ku wax maaliki yaa ëpp yool ki jàng wax maliki waaye nag ki wax maliki moo ëpp doole ki wax maaliki li ko mooy maanaam malik moo ëpp doole maaliki parce que malik mooy tekki ku moom malik mooy tekki buur waaye dama ne nit mën naa moom te fekk du nekk buur waaye ku nekk buur rek moom nga mën ngaa moom kër moom oto moom ni ay yére moom maanaam ab tere waaye taxul nga moom dëkk bi nekk buuru dëkk bi waaye nag boo nekkee buuru dëkk bi rek terewul loolu lépp mën nga ko am kon maliki moo ëpp doole waaye maliki moo ëpp yoon léegi nag maliki yow mi diini yàlla moom mooy buurab bi sa fay ba fii ci àdduna am na fi ñu yàlla takk neeral ca nguuram nga waaye bu yow mal xëyamee dafa wax li ma nil mulkul yow ma ñépp noppi kenn du ñemee sokkat tey kan nga fii buur ñépp mu ne ma yawma lillahi alwahidil qahhar moom kenn mu tontu boppam ne tey buur man rek maa ko doon man yàlla moo tax nguur takkandeer yàlla la yàlla na comme abal aw meloo muy takkandeeram waroo koo fooye fexeel ba yërëm sa population bi amal leen njariñ gisoo yàlla mi nga xam ne mooy buur ni mu amalee njariñ kii bi ni mu amalee njariñ eh, ay mbindeefam parce que alquran dafa nekk ci da nga xam nga tey dangaa njëkk a wax ne man de maa ngi sant suñ kilifa gi moom nga ubbee fatiha ku am kilifa gu mat kilifa war nga koo sant ne alhamdulilah maa ngi sant suñ kilifa bi maa ngi sant suñ boroom kër gi borom kër gu mat boroom kër bëggul maanaam dépense bu manqué duñ la coupé ñàkkoo dara war nga koo sant mu mel ni dañ la laaj ne la waa yoon lu la sa borom kër gi defal ba nga taxaw di ko sant nga ne ko sama borom kër dafa bëri njaboot ku bëri njaboot ñii soxna yaa ci kër gi taalibe yaa ngi fi njaboot yaa ngi fi maanaam doom yi tabaarakallaa surga yaa ngi fi ndax mooy rabbil alamin ku bëri njaboot la nga ne ko bëri njaboot dee yomb na est-ce que am na dépense xam nga nit dana bëri njaboot te fekk amul dépense mu ne pour borom gi nga tax may sant li mu bëri njaboot dafa dafa dafa jaare du am dépense te ñemee dépense ndax mooy rahman ñépp lay jox amul kuyeewoo ci kër gi ku xiif ñépp ñu ne ko waaw ndax dépense ab tay rek la am est que am na dépense ab ëllëg parce que am na ñu am dépense ab tay mu neex waaye suba du ñu fande mu ne ah am na dépense ab suba muy arrahim yi kon nag comme nag ku am borom kër gu mel ni li la waral mooy nga jaajëfal ko ne ko nag léegi malika yow mi diini borom kooku mooy ba borom kër gi nga xam ne moo man ci borom kër yépp ndax mooy malika yow mi diini léegi nag ku am borom kër goo xam ne nii la mel soo nekkee njaboot gu baax lenn rek moo la war a dese ci moom ne ko ñi ngi sa gannaaw wan ñu fan la ñuy xëy yàlla ne fenn rek laa bëgg ngeen xëy mooy jaamu ak dimbali ko ma mooy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in moo waral di nga alquran dafa toftaloo lool moo tax ñu ne ko iyaaka yow dong kott naabudu la ñuy jaamu wa iyaaka yow kott dong tamit nastainu la ñuy dimbandikoo ca jaamu ga ulamaawu ak xaqiqa la ñu wutee ulamaawu sariya jàpp ne ñooy yàlla ulamaawu xaqiqa jàpp dañuy dimbandikoo yàlla ca jaamu ga waaye ku yàlla bàyyi sa bopp rek nga suux kon gis na ko ñoom ñaar duñ benn waaye gis na benn bu ci nekk yàlla jëf na ca lu xéeme xoolal waa jii di jaamam yàlla bi yàlla ni mu màggee ak li mu ko defal yépp mu ifraatal ko wéetal ko ne iyaaka waxul iyaakum moom muy kenn jàngar bi ku màggal boppam ne naabudu te waxul ne iyaakum aabudu waaye dafa ne iyaaka naabudu kon boppam la jël def ko muy jalxo mu jël yàlla mu fatal ko lu tax nag loolu mooy wéetal yàlla ji moo jeexital ci moo moo fees xolam bi yàlla rek la gis ne kenn la ba mu feesee xolam bi nag moo dem ba manta man mënu koo nëbbu mu mujj fesal ko ci làmmiñam yi ba tax na ba mu koy joxañ sax da ko jox damiru xitaab boo xam ne kenn la ne ko iyaaka yow kott dong waaye waxut iyaakum waaye tamit boo gisee mu jël du def ko muy jaboo mu mel ni moom mbooloo dafa fekk kenn la nit ku nekk kenn nga waaye du woon lenn ñun ñëpp kenn lañ waaye du wuñ lenn kenn ku ne ci ñun yàlla dalaa danaa danaa manaam composé ci ay organes yu wuutee te organe bu ne li ko yàlla sant mu war koo jaamoo yàlla bokkut ak moromam na mu war a jaamoo yàlla organe ab xol moo war a fas war a lu jaamu bi organe bët nay xool lu rafet organe nopp nay déglu tànk nay dox loxo nay làmb demeet moo tax nag mu jël ko def ko muy naabudu ne man ba ma nekkee di kenn waaye duhuma lenn maag sama organe yépp xommatu nañ di la jaamu yow yàlla yow kenn waaye tamit man ak sama organe yépp bokk nañ tamit di la dimbali koo ci jaamu ndax boo ñu bàyyi tamit ñu surax waaye tamit dégg nga ci aay jee ku bëgg loo dugg yàlla def ci yërmande del ànd ak mbooloo mbooloo ci la yërmande nekk di lekkandoor ndoor ak nit ñi di tukke ndoor ak ñoom di tooga ndoor ak ñoom di jullee ak ñoom di waxtaan ak ñoom waaye ku beddee ko yonantu bi ñu bett la ci safara ñaari yonantu wane nañ ko benn yonantu bi dafa génnee boppam ca mbooloo ma yàlla rocc ci yërmandeem mu échec ca loola beneen yërmande beneen yonantu bi dugal boppam ca mbooloo ma yàlla dugal ci yërmandeem mu réussir ca loola yonantu bële moo doon yonantu yàlla Muusaa ku dëgër la bi ko ba mu dajee maanaam xadir xadir laaj ko ne ko ndax li ma lay imposé nga bëgg a soppeeku sama taalibe ndax danga mën a muñ mu ne ko danaa muñ def boppam muy kenn ne ko sa tëji nii insha allahu saadiran def boppam muy mufrad waaye muñut waaye gis nga yonantu yàlla Ismaayil lañ ko santoon moo gën a jafe moo doon nangoo la tëdd ñu rendi la xanaa kay am ak nit muñal ko tëdd ñu rendi laa ko gën a jafe waaye moom mu fexee ba jël boppam dugal ko ca mbooloo ma moo waral tamit muñ na nangu ñu rendi ko ba mu ne sa tagidu nii insha allahu mina saabiri kon dafa ne mina saabiri moo waral muñ na kii dafa ne saabiri rek moo waral tamit muñ kon ku bëgg loo duggati yërmande yàlla dugg ca del ànd ak mbooloo yàlla nag li mu mën ci fatiha jeex na léegi fatiha li ko dara ci alhamdulilah ba ci nastainu yàllaa ko moomal boppam ndax yépp ay melokaan la mu ñuy sant nañ ko bàkk nañ ko waxtu doon nañ yërmandeem ca ak dëxalam ba tudd nañ nguuram ga wan nañ ko ne yow la ñuy jaamu ba mu paree nag mu ne man li ma moomoon jeex na yow jaam bi seetal loo bëgg ma defal la ko jaam bi nag bu ko yàlla bàyyi woon na boppam musiba am jaam bi tamit dañ koo déey mu delloo yàlla ko wax ma li li ma lay ñaan pour nga defal ma ko ndax la yàlla bàyyi woon sa bopp da nga fay nekk may ma kër may ma jabar damaa bëgg dem Amérique nangam ak mu ne ko yooyu yëpp xamul solo ñaan ma njub rek boo xasee am lu ñàkkoo daal moo tax mu ne ko ihdina siratal mustaqim yow yàlla jubal ma rek ndax njub mooy bénéfice boo xam ne bët bu seen nga bénéfice bu du jeex mukk mu njub mooy loo xam ne boo ñàkkee keroog nga gën a am bitig bii nga dëkk tey bu fekkee da ngaa jub boo demee leb boo amee dem fay boo ñàkkee day mel ni day mel ni am nga ndax dana dana du feeñ boo demee rek mu jox la njub tamit moo la mën a may heure bu la neex nga génn mbedd bu la neex tamit nga xuus tey bari na ci nit ñoo xam ne duul heure bu leen neex ñu génn lu leen ko may juba ji am na ci mujj na soppeeku fóorus bu taxaw seen kanam tàkk rek ñu stocké da ngay ñoom ba ci kanam ñu ne ah man kat fii sama sens yu intérêt la te doo gis maanaam benn foo benn foo bu tàkk kon mujj nañ wa daqat alayhimul ardu bimaa rahubat kon soo jubalee lu suuf si yaatu yaatu dana mujj xat ak yow boo jubee nag fi nga dëkk lu mu xat-xat dana mujj yaatu ndax fu la neex dem fu la neex toog ànd yow kenn doo am benn problème moo tax mu ne ko kon ihdina yàlla nga ñu jubal siraata ca yoonu almustaqim way aji jub kocc moo waral njub rek la yàlla may soppeel waaye lu dul njub rek yàlla mën na koo may noonam ba noonu ba xëppale ko soppeel mais njub moom soppe rek koo gis mu jub rek yàlla bëgg na ko waaye yeneen yi ci des yëpp ay poñet ku ki weddi yàlla mën naa dem ba xëppale ko ki gëm yàlla mu ne ko wan yoon mu ne ko siraatu la si ne mooy yoonu gaa yi nga xam ne ana am ta tewe nga alayhim ci ñoom xayril maxdubi duhul ñu ñu mere ña ngir ak maanaam dañ leen a mere ci ñoom ngir mankil ay lu maxdub duwul ñu mere àll ñoom ngir manqué wala daal yi na duwul ñuy réer ñi ñuy commi commi ña ngir ak ëppal gis nga yàlla kenn la fatiha kéemaan la xam nga ku am njaboot jàppal ne ñett nga njaboot danga am njaboot boo xam ne dafa day dem ci loxo du wax mukk lu mu war ta wax du la ëppale tamit li nga doon dana d'accord nit nga baax nga waaye du ëppale la li nga doon mooy njaboot bi am ci loxo waaye tamit ku am njaboot da nga am njaboot boo xam ne da laa gëm a gëm fonk laa fonk la ba ëppale la li nga doon waaye tamit du ñàkk nga am njaboot boo xam ne dañ laa manqué yaa leen di jox waaye faalewuñ la te buñ benn mu nekk ci soxna wala ci doom wala ci jarbaat bu ñu xëy la nuyu keroog ba nga leen gën a lañ la gën a tëli yàlla nag yëg ne ñetti njaboot la am na ci njaboot boo xam ne dañoo yem ci loxo am ci njaboot boo xam ne dañoo ëppal dañoo ëpp loxo am ci njaboot boo xam ne dañoo manqué loxo loolu tamit la amee ci yàlla la amee tamit ci am na ci yonantu boo xam ne ñu ngi tuddee yonantu yàlla Luut daana toog di waaraate rek soxnaam fekk ko fa ne yëkkati kuddu luus gi rek dóor ko ko li ma la xamal ñi la wër buñ la ko xamaloon kenn du la dégg nit ñi jug bëgg koo dóor mu ne déedéet bàyyi leen ko moom rek laa desee ma yàlla bindalee ci kon léegi-léegi yàlla may la doom wala njaboot bu doy waar fekk yàlla nga ci jublu la ci bindal ci yàlla yàlla ñetti njaboot la am njaboot gi nga xam ne dañoo yem ci loxo mooy yonantu ya wëliyu ya jullit ñu baax ñooñu mooy siraatal lazina an'amta alayhim nga xam ne li yàlla moom rek lañ koy jox duñ ko duñ ko manqué duñ ko ëppal gëneen njaboot ga dañoo ëppul dañoo dañoo dañoo manqué dañoo manqué li yàlla yàlla leen di jox ñu lekk def lu nekk waaye teguñ yàlla fenn ñooy xayril maxdubi alayhim parce que ñoom mooy yahuud yi dañoo manqué li yàlla ba jàpp ne yonentu yàlla Isa judduwut ci yoon kon ñooñu dañoo manqué nañ manqué nañ manqué manqué nañ nitu yàlla te ku manqué nitu yàlla manqué li nga ki ko bind yonentu bi daana wax ne ku xeeb mbindeef rek xeeb na ki ko bind man xaqaral xalqa faqad xaqaral xaaliquhu bi ci tegu tamit wala daal yi na ñoom dañoo réer commi commi mooy nasaraan yi ba ëppal yàlla li mu doon taxaw ne Isa doomi yàlla la ñeen na ñeen Isa yàlla la yàlla yàlla la Maryama yàlla la yooyu yëpp kon dañoo ëppal kon ñetti njaboot ñi nag ñun bañuy ñaan ñu ne ko yow yàlla boole sa njaboot ki xam ci loxo te mooy ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina an'amta alayhim bu ñu boolee ci ñi nga xam ne tamit dañoo dañoo dañoo ëppal parce que njaboot gu ëppal baaxul sëñ Babacar si daana wax ne soppe bu nitee moo ma gënal soppe bu dofe wala sa daana wax ne euh, maanaam noon boo xam ne dafa nite ba pare moo ma gënal soppe boo xam ne dafa dofe parce que nit ki bu la soppee ba pare dofe di wax lu mu war a wax fu ne ma dem day war dalay dalay juralal ay noon waaye tamit bu la nit ki bañee te fekk ku nite la mën naa dem ba niteem nga yóbbu ko mu bëgg la kon mag ñi kenn du ñoom kon faatixatul kitaab a nekk loo xam ne lu yéeme la ma jaaral ci jaar bu gaaw nag léegi ñi ñaan moo tax mu ne alhamdulillah ah, bisimilah sos na ma sama wax ci tudd turu buur bi arrahmaani buur bay xewalaakoon bépp mindéef ci àdduna arrahimi buur bay xewal ku ko soob ci àllaaxira alhamdu melowu saxta rafet li laay ñeel yàlla rabbil alamina yàlla miy borom mindéef yi arrahmaani mooy buur bi nga xam ne ku bari yërmande la ak xéewal rahim yi tey xéewal ku ko soob ci àllaaxira maliki yow mi diine mooy buurab bi sa fay ba iyaaka yow kott dong na'budu la ñuy jaamu wa iyaaka yow kott dong nasta'iin la ñuy dimbanikoo dinaa yàlla nga ñu jubal siraata ca yoon wa mustaqim wu jub kocc wu jub kocc wa mooy koo xam ne waxam jub na xolam jub na jëfam tamit jub na ndax dafa am ci nit ñi ñoo xam ne seen wax jub na waaye seen xol jubut am ci ñoo xam ne seen xol jub na waaye seen wax jubut am ci ñoo xam ne seen xol ak seen wax jub na waaye seen jëf jubut ki dégg ki jët ki is waxtu wi jot mu dem noddu waxam jub na waaye ñay julli ji dajeeg moom muy football kooku jëfam jubut noonu nga koy xiyaasee ba lépp jeex moo tax mu ne ko siraat la si na mooy yoonu gaa yi nga xam ne ana am ta xéwe nga alayhim ci ñoom xayril maxdubi juhut ñu ñu mere ña di yi alayhim ci ñoom wala daalina juhut ñuy commi commi ñu réer ña di nasaraan ya kon gis nga fatiha rek moom kenn fukki attey balaaxa mi ngi ci def na xusnul iftitaax ni mu ubbee saar bi dafa rafet muy sant ak baraatul matlax maanaam kii tàkku feeñ waay commencé bi dafa yéeme waaye def na tamit xaabaabal muy mubaalaqa fi sanaa di ko xamle mooy alif laam bi istiraat la waaye def na tamit talwinul xitaab ndax boo seetee ci ci faatiha bi ci gisin mbind mi xabariya la waaye nag insha ya lañ ci namu maa li fa nekkoon mooy qulu alhamdulillah def na lixtisaas ci maanaam lillaahi def na xasaf xam nga siraata ñëw na ñaari yoon waaye ñett la woon siraatal mustaqima siraatal lazina an'amta alayhim waaye maanaam a siraata xayril maxdubi ñi xasaf benn benn benn siraat ba gis nga ko tamit def na lu ñu tuddee taqdim ak taaxir boo cetee maanaam fexal ji moom la jiital ak faa'il ji ci mafaol mi maanaam mafaol mee jiitu muy xasru muy iyaaka moo jiitu naabudu te naabudu ka la wala maanaam naabudu iyaaka mu jël nag iyaaka def ko xasru mu jiitu def na tamit tasriix mooy leeral gannaaw ba mu lëmalee ba a ne siraatal mustaqima yoon wu ko ci wa ñu ne ko xamuñ ko mu ne mooy mu ne mooy siraatal lazina anamta alayhim ngir xemem loo ñu ko mooy yoonu gaa yu baax nga xam ne waxut nga xam ne a rey waxut ñi nga xam ne dañ leen a dóor waaye dafa ne mooy yoonu xam ne dañ leen a xiwe minan nabiyina wa siddiqina wa shuhada waaye dafa tamit iltifaat ci baraka bi mu commencé ba léegi fatiha la da doon wax maanaam damirul xaayib alhamdulilahi diin waaye ba mu ñëwee ba ci iyaaka mu def damiru xitaab ne iyaaka joxañ yàlla ne iyaaka yow kot donc te bu njëkk ba lan fu mu commencé lépp da doon joxañ koo xam ne mel ni nekkul fii def na tamit talabu shay fekk wal muraadu bihi dawaamuhu sàkku loo xam ne da koo ne jox ma ko waaye bëggul nga jox ko ko weer nii woon dafa bëgg mu sax rek di continuer muy ihdina siraatal mustaqim dafa bëgg mu jox ñu njub koo xam ne day sax rek du du du luy yàqooti mukk du luy jeexati def na tamit sajoxul mutawaasi yu maanaam mutawaasi yu sa sajoxul mutawaasi yu boo ko seetee def na rahmaani rahim ne siraatal mustaqim def tamit nastain ak daalin kon nastain ak daalin ñoo niroo noonu guñ daanoo rahmaani rahim ak siraatal mustaqim ñoo niroo miin guñ daanoo kooku lañ tuddee sabiul mutawasil kon fatiha li ci nekk yépp buñ ci doon wax ba suba du jeex